bii di aar sunuy élection nag teg nañu ab jéego bu am solo ñeel càkkuteef yi nga xam ne ñii di askanu Sénégal doon nañ ko sàkku ngir ñu doxal la dogal yi nga xam ne ñii di waa conseil la amal nañ ko ñeel organisation élection yi ci délai yi gën ginnaaw bi nga xamee ne conseil bile dàq na décret bi nga xam ne dafa reporté woon organisation élection yi ñu dëgmaloon niki le vingt cinq février loolee nag ñu ngi ko defee ci ab dox ñaxtu bu amul benn coow ngir woote ngir ñu respecter charte bi nga xam ne moo tënk réewu Sénégal te itam doxal processus électoral bi nga xam ne tàmbali nañ ko marche boobee ñu bëri wuyu ko ba tax date bii di le 7 février 2024 bi ñu weesu date la bu am dayoo ci taarixu Sénégal ndax day delloosiwaat askan wi ci digg géew gi ndax nag askan wi kese moom moo mën a tàmm ki nga xam ne moom moo nar a nekk seen juróomeelu njiit ginnaaw bi nga xamee ne kii di président Macky Sall jeexal na ab mandaawam aar sunuy élection taxaw ci taxawaay bu am solo ndax nag Sénégal bi mu jotee indépendance am ak léegi askan wi mosul bokk ci processus électoral bi ak organisation beek lu ni mel acteur politique yi kay ñoom ñoo doon doxal di teg regle yi di jël ay dogal ci lépp lu jëm ci wàllu wi waaye nag acteur politique yooyu nag wane nañu ñàkkum xarañte bu ñeel lii di respecté calendrier électoral bi ak itam respecté dogal yi nga xam ne yoon mu ngi koy jël ak conseil constitutionnel yi nga xam ne ay jumtuwaay yu dëgër la ngir doxal démocratie loole nag indi ñàkkum kóolute bu am solo diggante askan wi ak politiciens yi ba tax askan wi gën di yokk seen taxawaay ci langue bi ngir doxal intérêt réew mi ngir itam puus ñii di politiciens yi ñu mën di respecter institution yu ni mel loole nag tax ba ñi nga xam ne ay politiciens yeen nag léegi nag faw rek ñu respecté taxawaay bi nga xam ne citoyen sénégalais yi ñu ngi koy taxaw ci xeex bi ni mel ndax nag dox ñaxtu bi ni mel mu ngi wane ne ñu ngi jëm ci république bi nga xam ne dootuñu bàyyi ay président de la république di def lu la neex waaye nag république bu na bi nga xam ne day doxal intérêt réew mi loolee nag ñu saytu ko niki présidentielle 2024 bi ñu dëgmal ndax nag njiitu réew bi ñu nar a tàbb ci élection 2024 yu ñu dëgmal dina yaakaar ne yi nga xam ne askanu Sénégal amal nañ ko ñeel respecte charte ndeyu réew yi mu bañ a mel ne rek état yi nga xam ne moom nañu donn ginnaaw colonisation nga xam ne ñooñee naxaate rek lañ fi nekkee